ligne de crédit yi euh, permettre euh, entreprise yi nekk ci secteur touristique ak ñu nekk ci transport aérien ñu mën euh, financer cet investissement ba pare meuna a aussi ci doxalin bi maanaam fond de roulement maanaam exploitation yi lolu aussi euh, nek na ci euh, ci convention bi ñu signé tay alors li gëna am particularité ci convention bi moy que convention bi investissement yi ñuy wara financer pour la première fois dinañ dem ba fukki at ba paré Pour ñaari at de pour fonds de roulement yi dinañ dem ba ñetti at Nous benn at de différé différé moy appal entreprise bi pour mu noy bu commencer fay Koku dina permettre entreprise yi ñu mën xarandu fi ak at parce que yakar nañ ne fi ak at wala at euh, pandémie bi dinañu dépasser dinañu dinañu dina jeex nous donc c'est moo tax est bi ñu jox ko ko alors ma rappeler le secteur yi ñuy financé dañoo nekk des secteurs stratégiques Vous savez, ne euh, euh, Sénégal daf ko def secteur de de relance savez, l'économie ne économie bi daf si compter bu baax soo xoolee suñu plan euh, ajustement accéléré PAP 2A le secteur du tourisme et le secteur du transport aérien nous ngi ci et état bi compter pour que nous puissions développer économie bi donc ñun suñu taxawaay tey d'abord en tant que banque sénégalaise sous nos objectif l'économie sénégalaise mais aussi en tant que banque sénégalaise aussi que aussi euh, permettre euh, entreprises nous maintenir pour que ah, employés nek 200 200 employés au niveau du secteur euh, du touristique plus de 1500 employés au niveau du secteur transport aérien que nous aussi nous maintenir emploi ba yàlla dimbali ñu ba lii di pandémie bi génn ci Sénégal génn ci àdduna bi pour que économie bi mun a delluwaat fi mu nekkoon.